te bu yàggul monsieur le ministre Thierno Alassane Sall ñëwoon na ci koñ bi def si fi proximité ci talaan ànd feeg président zone bi ñu koy wax monsieur Abou Ba ba bëgg ngeen tàkk ma ko mu ànd feeg Iba Sy responsable jeune ci cité Lamine ànd feeg Alioune Guèye ànd feeg nag suñu ñaari responsable yu mag yu ñuy wax Mor Diaw ak Mamadou Sall ñu ñëw fii nag am mbégte fekk fi ñeenti président du groupement avec di kenn ci di tudd Fatou ñu fekk fi Fallou ak Aïda Mbodj ma bëgg ngeen taatul ma leen kon ginnaaw visite de proximité boobu am na lu fi ministre Thierno Alassane Sall digge woon ndaxte ñëw na fi fekk na femme yi def seen formation micro jardinage jël ci seen alal jël ci keesu avec investi seen xaalis def ko ci kon mu ñëw fi kontaan ne nag lii ginnaaw ba ñoom ñoo jël seen xaalis def ko ci man dinaa jël remboursé leen jël ay leket jox leen kon loolu dañ ci kontaan dañ ci am mbégte ñu ñëw fi tey nag fekk fi jigéen ñu am ambition jigéen ñu gëm seen bopp jigéen ñu bëgg koñ ndax tey waxuma rek leket yi waaye liñ fi dëgg am na sol ci wàllu doléance ci koñ bi kon moo bëgg waa koñ bi xam ne jigéen yi nekk ci groupement avec bii na ngeen leen jàppale ndax ñii ñu jigéen ñu am ambition la ndax tey wax nañ fi wàllu puisard problème mu puisard wax nañ fi problème mu wax nañ fi problème mu emploi wax nañ fi problème mu lampe yi énergie kon nag kii ñu bëgg a jàppale am nañu yaakaar ci moom ndaxte monsieur le ministre Thierno Alassane Sall ñëpp xam nañ ni mu ñëw ci département énergie ku biir wàññeeku na ci dëkk wax dëgg yàlla ndax léegi kenn jàmbatul loolu même bu coupure amee it du yàgg cinq minutes ba dix minutes mu ñëw yàlla xam na ne am na benn ku yor boulangerie Mbour 1 dafa ne ma man dinaa jàppale Thierno Alassane Sall ndaxte ba fi góor gi nekkee lañu ñu doon ñàkk ci xaalis ci wàllu jëndu pétrole ndax groupe électrogène loolu léegi tax kon Thierno mii am nañu yaakaar ci moom kon nag du ma def rek lu dul président de la zone comme li ma waxoon sànq rek di ko dénk muy monsieur Abouba mii amul heure amul huit heures heure bu ngeen ko soxlaa fëgg leen ndax moom mooy Thierno Alassane Sall mooy Macky Sall su ngeen ko soxlaa daal na ngeen fëgg ci moom. kon nag monsieur président ñu ngi naan la asalaamaaleykum di la souhaiter la bienvenue di la jox kàddu. di nuyuwaat rek responsable yëpp comme euh, niñ ko waxee woon muy Mamadou Sall. di Alioune Gueye di euh, Mor Diaw ak miika ak groupement wu yiñ yi ci fekk yëpp fii ci biir Cité Lamy tuddoon nañ leen sànq muy euh, muy muy groupement ànd defar suñu gox président bi di faatu sàmb ak groupement ànd liggéey présidente bi di Fallou géey ak groupement jàppoo liggéey présidente bi di Aïda Mbodj di sant di gërëm comme niñ ko waxee woon semaine bi ñu génn le ministère no Alassane Sall dafa defoon tournée bu mag biir Cité Lamy di nemmeeku militant yi mu commencé le 15 bi ñu génn mu commencé ko ci suba ba ay 21 heures ci guddi euh, dem na ci militant yi dem ci base bi waxtaan ak ñoom nemmeeku leen déglu leen xam seeni soxla loolu aussi bokk na ci liggéey bi nga xam ni la ministère nu Alassane Sall mi ngi koy def euh, ci biir APR fii ci biir Thiès mooy massifier la parti loolu mu def euh, semaine bi passé wane na ko mu ngi wane ni moom mu ngi massifier la parti parce que chaque week-end mi ngi cees chaque week-end mi ngi cees mi ngi nemmeeku militants yi di waxtaan ak ñoom di xam seeni soxla liñ ci mën a faj mu ngi koy faj donc kooku vraiment mi ngi jàppale le président Macky Sall mi ngi massifier le parti muy APR ànd ci ak mbooleem responsable politique gu APR yi ak waa Benno Bokk Yaakaar. Euh, di dëggal aussi unité bi nga xam ne vraiment président woote na ko ci fii biir Thiès Thierno dëggal na unité boobu. parce que nemmeeku na militant yëpp ak responsable yëpp muy APR di Benno Bokk Yaakaar tàllal loxo ñëpp wane ni moom liggéey rek la bëgg jàppale président moo ko soxal ànd ci ak euh, frère am yi nga xam ni ñoo nekk fii ci biir commune bi ak département bi muy Augustin Tine le ministre Augustin Tine honorable député Abdou Mbow Siré Dia docteur Ndiaye ak mboolem responsable politique APR yi mi ngi ànd ak ñoom vraiment pour massifier le parti. bon di rafetlu tamit euh, euh, li nga xam ni président def na ko mooy dénk le ministre Augustin Tine la département pour mu coordonner ko dénk aussi le ministre Thierno Alassane Sall commune u pour mu coordonner ko ci biir APR. donc loolu lu ñuy rafetlu la vraiment di ñaan ñëpp ñu ànd ci dynamique unitaire euh, ànd nekk benn. pour élection législative yi ñu dem ñu fexe am ndam pour le président Macky Sall 2019 aussi ñu fexe ba le président Macky Sall am deuxième mandat muy élection présidentielle yi ñuy jëm te le ministère nu Alassane Sall ak tous les responsables de l'APR ak Benno Bokk Yaakaar yi nekk ci biir Thiès ci dynamique boobu la ñu nekk. donc di rafetlu rek geste bi nga xam ni le ministre def na ko muy le ministère nu Alassane sal parce que bi mu fi jaaree dafa dige woon ay leket lu ñuy tuddee leket mooy financement yi nga xam ne da koy defal groupement wu femmes yi par cent mille cent mille mu fekkoon fi ñetti groupement fii ci biir Sitalam yi ci benn côté ci si talami ci ànd ci koñ bu naan waalo gi ñu fekkoon fa ay responsable yu mel ni Mamadou sàll ak ñoom Alioune ak ñoom Mor Diaw ak ay Mika ak groupement yi ñu fi fekkoon mu ne leen dinaa leen defal financement wu leket financement yooyu moom la ñu indi tey pour jox ko ñetti groupement yi nga xam ni le ministre digoon na leen ko wane na ni rek ministre vraiment euh, engagement yi nga xam ni jëloon na ko mi ngi koy respecté ku sàmm kàddoom la ku jàppale président la toujours xalaatam yitteem mooy que lu jëmale Sénégal kanam ànd ci ak le président Macky di wane aussi fidélité am ci eh, président de la République di wane aussi engagement bi nga xam ni am na ko ci président parce que politique bu président mi ngi koy doxal guddi ak bëccëg moom le ministère nu Alassane Sall ànd ci ak tous les responsables du parti yi nekk fii. donc loolu moo taxoon ñu ñëw tey si talam yi ànd ak ay responsables pour indi financement leket yi nga xam ni le ministère nu Alassane Sall diggoon na ko groupement yi donc ci gàttal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, di leen jox dig daje. ba beneen yoon di wax que ni aussi mi ngi ñaax ñëpp pour que ñu dem bindu ji pour carte d'identité yu bees yi pour ñu mën a am carte d'identité ak carte électeur pour waa waajal élection législative yi ngi ñu jëm nga xam ni Thiès dafa war a jël euh, victoire bi tox jox teg ko ci loxo président Macky Sall. muy législative yi ñu dem 2017 ñu waajal aussi élection présidentielle yi ñu jëm muy 2019 fexewaat ànd ak Thierno Alassane Sall ak tous les responsables du parti yi nekk fi ak Benno Bokk Yaakaar ñu jox le président Macky Sall deuxième mandat muy 2019. donc loolu moo doon suñuy tànk tey ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñuy woo présidente ñetti présidente groupement yi ñu ñëw